dambo j'ai du respect pour lui mhm. mais pas wax kañ rencontré rencontre ministère de l'éducation wala ci recrutement bi mhm. ban rencontre la ci participer amul mhm. ñun nous ñoo participer gis nga mi ministre de l'éducation daf ñu nous avons jox nañ ñu 5000 enseignants qu'est-ce que vous en pensez bobu première rencontre bobu dañ ko en visioconférence ñu nek monsieur le ministre saluer la démarche qui consiste mais à inclure dans la dynamique tous les acteurs wante nag ni avons mode biñu défé réunion bi parce que les nii dafa am solo tellement que nous ñu def ko en visioconférence dañu bëgg ñun ñëpp ñu top ci luñu fait deuxième réunion ci lañu nous discuter sur les critères d'abord les techniciens du ministère avec le directeur des ressources humaines wax ñu ñom yane critères nous arrêté ñun ñu nous ci critères yoyu avons fait ci lenn Nous avons fait dañu bëgg ñu insister ci moy jeunes sénégalais yoy nga xamné ne am déjà le diplôme professionnel parce que def nañ formation ba paré li ñuy xaar rek moy ñu recruter len ñu dem jàngalé ñooñu dañ leen wara a jël en priorité bi wax diplôme professionnel nak ci lu ñu xamoon ñi am KS FASTEF ñu am KM FASTEF ñu am KSM FASTEF ak ñi am CAP ak ñi am CAP pour l'élémentaire ndikete am na yenen catégorie yo xamné ne am un master d'enseignement

ku la dàq coow nga ne kii la d'ailleurs ñi ci dàq wax sax ñi ko fekkewul yëral yëral waay yëral yëral xam nañu jotali yëral yëral